asubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim man Aïda Loum responsable jàkkee sëñ Baye Ndiaye maay nuyoo di am kàddu yu cant yu ma bëgg a jottali rek ak mbégte ndax dañ doon lancé suñu mouvement ak Cheikh Abdou Bali Gaynde Fatma tey nak ñu gis ci lu kawe suñu jortu may jottali kàddu yi cant ndax mbégte ak kontaante di sant mboolem ñu fi ñëwoon te dëkk jàkkee sëñ Ndeye Ndiaye ndax woote ñu wuy si la dafa jafe te ñun dañoo woote ñu wuy si ñu wuy suñu ak xol bu sedd ak Pastef tax nag ma am yéene mantam ak mbégte kontaan tamit di sant mbooloo mi nga xam ne ñoom laa àndaloon muy mbooloom jàkkee sëñ Ndeye Ndiaye ak mbooleem ñu ñu wuy si woon te am engagement liggéey ak Cheikh Abdou lu ko demee ne tindodi ba umul khura mbake bari tabla mambala balla ak fu man ti nek biñ la tàllalee loxo nga ñew jël engagé wu pour ànd ak ñun ñu dooleel Cheikh Abdou di sant wa jàkka ji di sant ñi ko soxna Ami Diop jojo Diop Maram beng nday Maram nga ngi len di sant di len gërëm Euh, di sant euh, organisateurs yi nga xam ne ñoo yoroon bis bi xale yi jàkk ji di ci jiital euh, bale ñëpp maa ngi leen di sant di sant nag sëriñ ndax lépp lu luñ fu ñu egg rek tey dañ ko ko sante ndax dox na ci ay jéego yu am solo te moo ñu génne nag ak Pastef ak ak oyof lu nekk ñu di ko ko teg muy nangu wax dëgg yàlla sant nañ la di sant xale yépp bale ma teg ko ci sa loxo nga leen koy jottali di leen wax ne maak ñoom la ndax xale yi tamit wax dëgg yàlla def nañ liggéey bu am solo lépp ñoom a ndax ñun dañoo toog depuis koor ga ba nëga ni ñu dem ci Cheikh Abdou ba léegi xale yi tooguñu ba bëccëg seen liggéey sax defatuñ ko ba bëccëg suba ak ngoon ñoom ñëpp ñu ngi jóg ñooy dox ñooy dem di paas di yéeg di wàcc wax dëgg yàlla jaaraama sant naa leen di sant mboolem ñi ma àndaloon sëñ Mbàkke Sarr di sant euh, xale yi ci kër gi ñoom Fama Diop. ñoom bu sa ñoom ñëpp maa ngi leen di sant boo limee da ngay juum ak ñi ma wuy si sama yaay maa ngi koy sant di ko gërëm juba juba sonn na di sant sama grande sœur yi ñëwoon ñëpp maa ngi leen di sant ah di sant Cheikh dellu di la gërëm am nag ñun ñoo jóg am xol bu rafet ak mbégte ànd ak yow te ay liggéeykat lan doon ay responsable di ay jàmbaar xam fi ñuy teg suñu tànk waane bi ñu jógee ne dañuy liggéey dañoo xool liggéeykat ñu ànd ak moom muy Cheikh Abdou ndax man tuuguma mbusoobe ba umul xuraa fu nekk ci sanc yi dama faa am ay mbokk di fa dem gis liggéey bu rafet bi ngay liggéey di jàppale jigéen ñi di leen financé jigéen ñi di liggéey di jàppale seen borom kër yi nga leen di jàppale lu jigéen sori sori yëgatut tey mat wu metti te jigéen ñi ñoo nekk ci kër yi ñooy yóbbu seen sëriñ yi hôpital ñooy yóbbu njaboot gi te fu nekk yaa ngi fay liggéey liggéey bu am solo di wut ay ambulance di fa yóbbu di def ay financement man ay da laa gis donte nekk gi ma nekk ci sa biir kër euh, di Daaru Xuddoos sa liggéey laa la jàppe te dara ñuru la lu du dëkku Sëñ Tuubaa bi dara ñuru la lu du taalibe yi Seex Abdu doo ko gis muy diri mbasee doo ko gis muy sol loo xam ne danga naan kii mënoon naa tëdd sant Mbàkke doy na mbàkk moom surtout moom moom mi nga xam ne bete bete Mbàkke Mbàkke la yaay Mbàkke baay Mbàkke ju riis sax Mbàkke ñun xam nañ ci dara nga waroon a tëdd nag def ni maaraay yi def di noppaliku di lekk sa xaalis Mbàkke di foo loolu yaa ngi futteeku nekk ci terrain bi ànd ak ñun lu la ñor dëkk bi dëkku Serigne Touba bi moo la ñor ak taalibe yi ndax dangaa jël sa alal di ko financé ci jigéen ñi ñuy liggéey nga jël ñi nga xam ne sori nañ di dugg saret mu metti lool ñuy dem hôpital ngay jënd ay ambulance di leen jox ma maanaam fu ñuy dem léegi lépp yomb na leen Mbàkke yàlla na yàlla guddal sa fan ñun waa jàkkay sëñ Bay Njaay Banji gépp ñu ngi ci sa ginnaaw ànd ak yow nag te engagé wu ñun nag ñëwuñu tey tàccu la rek mu jeex ñu dem suñu yoon dañoo jël engagement ànd ak yow liggéey ak yow muy lu sedd suñu xol di lu ñu neex Mbàkke lépp loo yëg mbaaloo yëgul ay dalum ak ñi ci ginnaaw ay dalum ñépp ñi ngi ci engagement di la liggéeyal di ñaan yàlla yàlla guddal sa fan fi may daaneel xanaa sant suñu kilifa yi ñu dëkkal ah, di waa kër sëñ Bay Njaay Banji li ko commencé ci sëñ galas sëñ xaadim sëñ alaaji ba ci oustaz ñang di sant suñu association bu mag bi fi nekk te Modou Fall jiite ko di président bi di sant Mbeng Maar Mbeng suñu docteur bu oyof boobu nga xam ne ci sa digg la la lay fekk di la sampal ay biteel te du sonn du tàyyi du la jël loo taxi ak laabir du la teg ordonnance bu seer ñu ngi leen di sant sëñ xaadim nag li tax ma di la sant di jël cant gi di ko teg ci sa loxo sa buntu kër ngay toog seen ñu ñun ay jigéen boo gisee wax ji ñagas sax da ngay gàddu sa kurus sa oyof dikk waxtaan ñun delloo si ñu te lu ñu nekk yaa nga ca bi ñu jógee ne la dañoo bëgg a dooleel Cheikh Abdou Gaynde Fatma ndax liggéey bi muy liggéey te bëgg nañ koo feeñal ndax Cheikh Abdou kat mi ngi liggéey waaye luñ bëgg a feeñal la da nga cee am kontaante ak mbégte ne loolu ànd naa ceeg yéen ba léegi bàyyiwoo sëñ Xaadim démb bi oto yi taxawee ci jàkka ji dafa yor kurusam taxaw di ñaan di sottim ndox di reetaan bi bi ñuy ñëw bi mu déggee sar xole yi dafa taxaw ci bunt bi yal na yàlla guddal sa fanjaay kilifa nii lay mel wax dëgg yàllaam sëñ Mbaye Ndiaye dem gi la ñuy jooy waane du lenn loo xamante ni bàyyi na ko fi te matali woo ko di sant sëñ Alaaji oustaz man personnellement maa lay sant man ay daluum ak nag di la jottalee santoog jabooti ji ci jàkka ji yëpp ndax suñu xale yi dañuy xëy balxar rek yóbbu la ci école bi oustaz nga nekk ca tàngoor wa nekk ca coono ya métti gone yi ak li ñuy jànkonteel ñun yaay yi ndegam ñoo ko mënut a dékku masamaa yow te lépp sa xol bu rafet ba ñu dëkkee yow ñaar fukki at du benn fan du ñaar fukki fan sa oyof sa baax sa laabiir ak sa xam-xam oustaz jërëjëf ñun waa jàkka ji ñëpp ñu ngi lay sant di sant ñëpp asalaamaaleykum. ñu dellu rek xel day fattu ñun waroon a jiital di sant Omar Ndiaye Angloma di sant Moustapha si selo yónnee na ndawam ci turu mouvement bi. di sant Abdoulaye Sadaga Abdou Lahat Ka mbooleem ñépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm man Aïda Lô maa ngi leen di sant te nekk ci seen ginnaaw fas yéene falaat Macky nag 2019